maamin ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal ko ngir mën a xam ñu ne ak santam TV di am benn émission bu bees nag bu ñuy tourné si TV muy émission Roso di wax si actualité làmb quoi. ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli suñu tur bi gërëm suñu waaj ñaari waajur di dalal champion bu mag boo xamul ni déglu ko muy Tapha Boy Bambara ndax suñu ne Tapha Boy Bambara su dul dara sax suñu ne Tapha Boy Bambara ak Modou Lô Tapha Boy Bambara ak Papa rek loolu dafa jeexal wax Tapha ñu ngi lay sant waa kër gi su may lëkkandoo ak suñu xarit suñu àndandoo ak UGB bi yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk maa ngi sa wàccuwaay quoi. mais Tapha Boy Bambara dañ lay laaj Tapha Boy Bambara moom mu demee noonu Tapha Boy Bambara mu ngi ci làmbal Tapha Boy Bambara dafa bàyyi làmb parce que dañoo gëj a gis Tapha Boy Bambara Tapha Boy Bambara lan la nekk. waaw Omar euh, laaj boobu boo ma ko laajee dama ciy sawar a compter Tapha Boy Bambara dawul daañu. da ngay dégg ci làmb xëy na nag am na ñoo xam ne duñ may gis mais chaque dimanche saa yu su may rakk di bëre maa leen di maa ngi leen maa ngi dem làmb bi waaye nag li tax ñu naan Tapha ndax nekkatul ci làmb ji wala kii bi ci man parce man li ma am mooy topp sama entraînement danay entraîné toog xaar gars yi song la jox la combat nga bëri mais bu fekkee ni tey ji yow tëbaloo sa bopp kon tey ji da ngay mën a toog xaar mais soo déggee ñu naan Tapha Boy Bambara dañ ko gëj a gis parce que depuis 2010 ba léegi Tapha Boy sant ku ko xam nga ko ci làmb ku ko xam Tapha Boy Bambara kenn ne kenn mooy problème promoteur yi la mala la te Tapha Boy Bambara su dee ñaar tamit Grand lan mooy problème Tapha Boy ba léegi moom bët ko gis ak si lan la ne carrément Tapha mu ngi ci la wala nekkatul ci làmb waaw ba tey déggoo ma la làmb defe naa ne man tant que xottu wuñ sama licence wala ñu euh, maanaam euh, kii na nu mu ci rëdd retraité na defe naa man kon kenn mënu ko ma génn ci mais nag tey jii làmb mooy li ma la wax rek da mën a entraîner entraîner toog xaar mais du man maay tegal Sonko mais xëy na tey jii promoteurs yi am na ci ñoo euh, ñoo xam ne tey jii yaakaar nañ ni e ma woon nekkatu fa déedéet. budé ci walu mbolo samay supporter ak samay andi jam samay xarit ak samay ñep li fi nekkon mo fi xëy na nag ñàkk ñam tafa mo mo fi nekk rek mais ko ñam di nga xam ni tafa di sa ko mo ko mo tafa di nga musa di nga musa mais lamu ji so déggé tafa so waxé loolu day melni ku ba am day am la parce que lamu ji actuellement ni fim tollu ni parce que comme ni ñu né affaire de gox la tamit non la nexé di affaire de. Euh, affaire de kii ci promoteur yi parce que promoteur bu ci nekk léegi daanaka booy xool ñii géejewaay am nañ pro am nañ. am nañ promoteur am nañ promoteur. parcelle am nañ promoteur. promoteur euh, Pikine am nañ promoteur Pape mais du tee tamit ñooñu ñëpp rek euh, ñu ngi leen di tàllal suñu loxo ñun waa écurie Grand Dakar waxuma ci sama tour man parce que bu dul Tafa am naa sumay rakk yu nekk fii ñoo xam ne tey jii ñu ci bëri ñu ngi fii ci écurie bi xale yu am mbooloo yaa dégg. te bëriwuñu quoi mais daal ñu ngi tàllal ñëpp ñun nekkuñu fi ak pour benn promoteur dañ fi nekkal pour promoteur yëpp parce que ñun comme làmb la ñu du ñu ne kii moo ñu tëgg wala tey moo ñu tëgg ñun ñëpp lañ ubbil pour ubbil Grand Dakar ubbil nañu bépp promoteur suñu gund ko. mais taxaw loolu leer na mais léegi dañu bëgg a si affaire bi làmb. waaw waaw booy bàmbara instant yii ñan mooy financier bëri na parce que bu ma nekkee fii nii lim mun naa ne mais nag doo ragal ku nekk ci làmb doo ragal yow am na ñoo xamante ni tey ma la tey jii Tapha Mbeur mu ngi fi Tapha Mbeur ak Tapha ci démb maa ngi toog mais est-ce yow ñeme ngaa jël avant Tapha Mbeur toogal la yow est-ce que nga yow kuy kuy wër kuy wër lu muy ci dafa am ñu ci làmb ji daa nangu la jël daa nangu la jël dafa am leneen lu mu topp rek jox nañ ko waaw ndax dafa am mais non mais actuellement nee na mu ngi xaar gaay yi kuñ ko jox ku nekk dina jël mais est ñeme ngaa jël avance dafa am bëri waaw naa la de reer la kii yéen doog gaynde ñëw jéggi ko ne ko maa ngi dem te looy faale looy faale dafa am waaw ragal na yooyu laa dëkk Grand Dakar su ma ragalee sax waa Grand Dakar su ma naree dellu avance Tapha Mbeur déggoo li ma. ay Thiel dara. billaay kon yàlla naa teg teg sama njab. ah ma la ko. Tapha ci moom la des. xam nga lu war a ba. na bàyyi waxam ji ak wër. nit da dem ci sa domaine. ñun ci loolu muy def noonu ñun ñoo ko ci gën a mën a def te teewul dañoo toog fi ñu nga ay ñoom euh, papa kii nu mu tuddati ay euh, premier ministre yi muy toog. Amadou Ba Amadou Ba yi ak ay pap pap pap papa Malick Ndour ñooñu duñ ay commencé ñooñu duñ ay nawleem na xooli mbër yi moo gën ñu bàyyi ñoom ñooñu ñu ci seen domaine yaa ngi te ñooñu mënoo dëkk ak ñoom ba pare di leen xalaat. yaa ngi dégg mënoo dëkk ak ñoom ba pare du leen xalaat nit da ngay def jëfu nit nga nekk ci nit ñi mais bu fekkee ni nekkoon nit da ngay nekk dem ci jox instant yii nii moom kenn xamul lan la moom dafa mel ni dafa commencé. waaw xam nga est-ce moom mu ngi ci làmb ba léegi. mu ngi ci làmb. parce que fii lay ñëw di wax naan ay gars yi dañ koy dañ koy jaxase ndax affaire de xaw ma Sonko déedéet ñu dugal foofu Gambie waa parcelle ay ñëw Papa ñoom ñu ngi foofu parce que ñoom mënuñu bokk dëkk ak moom ba pare naan dañ koy xeex amuñu benn kii Papa Sow woo nañ jox nañ ko fi ay mbër mu daw mais nañu man ubbi naa ko bunt mais Tapha yaa ngi dégg Tapha Boy Bambara li wax promoteurs yi nañu ñu déglu ak ñoom Mansour doomu Père Ba. du ma jël de day teg ay Gaston production ñun ñun ñu déglu dafa mbër. dafa booy bambara nee na doo jël. Oh, parce que kàppet na. su naree jaar ci tari euh, route nationale bi <laughs> ma jël. day teg mais après après dafa mbër nag kan ak kan. bari na y' a y' xam nga tey mais dafa booy bambara. instant yi nii. gëj na bëre mais champion la ci nekk ku xam Tapha Boy Bambara Tapha Boy Bambara bëre naa ak Modou na wax mais Tapha Boy Bambara est-ce que du yoon tey mu may ay rakam looloo tax nag wax la man damaa defar sama stade ba ñaax ba porte amul bunt euh, néeg bi amul bunt ubbi naa booy parce que man dooratuma tollootuma foo xam ni dama naan diw mi wala diw mi diw mi booy ñooy wax ne man Tapha mi laa soxla bëgg a bëri ak man ma may leen chance. mais Tapha Boy Bambara ak Pokola Balde wala Tapha Boy Bambara ak Jacob loolu combat Pokola am na combat sax. waaw ak Jacob Balde. waaye déggoo ñuy wax ku ñuy wax ay. Jacob yow su ñëwoon pare nga pour may ko sens pour mu bëri ak yow. déggoo na ma nag waaye yow. waaye bu jàpp ci dangay faale jaan nga naan may fii. waaw Jacob tàng na de Tapha. yow man damaa mos a lu set man. man sama nekk est-ce dafa am dafa am clim non non amul clim waaw kon tey lu tàng laay war waruma lu sedd man dama war lu sedd promoteur lay dégg dafa boy bambara sakop balde loolu combat gaadu la sakop dafa boy bambara tous les lutteurs il a des lutteurs beaucoup de lutteurs de jeunes waaw mais mango foroxal yi yi nga xam ne dañoo fuusaale ma man bay jël balde balde mais la combat balde 30 at yoo xam ne bëriwul man ma fay jël. mais Pathé champion la Tapha. champion la Pathé nee na la gëj a bëri. mais am nga Pathé Baldé suñ la wooyee proposé. léegi loolu ñaata am war nga ko mën a jël may ko sens. loolu ñaata la 2002 ba 2000 loolu ay. ay 21 ans 22 ans. ay 22 ans. waaw léegi yow man yow man mun naa ënn ba pare di wutaat lu ënn di ci dolli. saa yu ma ne waxuma leneen man su may daaj. mais mais mais mais Tapha Boy Bambara mais Tapha Boy Bambara grand contre petit dafa xew maestance dafa xew. waaw nag léegi nag maag Fatou nag ñun ñoom ñun ñaar ñooñu. ay grand lañ. léegi moom na jël na benn jël na benn mën a bàyyi ma jël benn yaa ngi dégg Fatou moom xam na ko man xam naa champion la yaa ngi dégg bu ñuy wax Pikine foofu noonu kenn du génne Pathé Baldé ci champion. ci mën a bëreem am ci itam ci lépp ndax xam na ma xam ne yàgg nañ bokk ay guddi man ak moom ci mbapat mbapatu kuy doy boobu muy wax noonu yàgg na ko tam mais fu mu tojee fu ne man lay naa ko ba baraax koo sànni xamante nañ bu baax moom ak teew ba waaw loolu c'est comme princesse dafay geste bu noble geste bu nice la parce que ñoom bi ñu fi tolloo seeni mag dañ leen a may sens ñu ñëw bëri ñoom ba dem ci kaw comme tey ji Eumeu Sène ci suma xel mu gàtt li nga li nga li nga dese bëri na parce que Eumeu maanaam booy arrière ba dem ci miir bi xam nga ni sës na Eumeu tey jii fi ñu toll nii ndaw boo xam ne tey jii am nga discipline am yaru parce que ñëpp bëgg nañ bëri ak moom ñëpp bëgg nañ bëri moom ndax champion la bu bëree mu neex su xeexee mu neex bu tuusee mu neex xam nga li ma kon kooku tey jii rêve la ñu bëri ni bëgg ni ni ni booy di bëgg rêvé pour bëri Tapha Boy Bambara noonu la ñuy rêvé pour bëri ak moom yaa ngi dégg parce que tey jii champion la Sa Thiès tamit champion la wane na ay ay puom ba tey jii ñëw ci ñëw ci VIP parce que tey jii ñoom ñoo fi nekk. ñoom ñoo fi nekk. parce que tey jii VIP yi ñu doon wax yëpp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bëri nga ak sa morom ñaari yoon ñii ñetti yoon ñii ñii kon léegi ñenn ñoo fi des boo yee fi nekk. c'est normal monsieur Mbaye Sa Thiès non déglu ma lu normal la te déglu ma bu fekkoon ni tey jii normal loolu kon Eumeu Sène du leen xool parce que Eumeu Sène mbër ci dem ci ku mu jóge ci tafaatin la jóge kon tey jii bu paree rakam ñëw taxaw làmb moom da ngay daan da ngay daan say say say say mag say rakk ñëw nga tàllal loxo ah nga dem ak ñoom ñu xool di nga dem ak ñoom walla doo dem. mais kon Tapha may Jacob ma la nee naa la ku dul Jacob Baldé xam bu ma toppee di wax benn kii rek dafay mel ni moom laa visé képp ku dul Jacob Baldé ak Tapha Mbeur ay moo kankan ak non waaw moo moo kankan gisul gisul ah Mor Kantan Mor Kantan diisul. voilà ay eh, waruñu lu oyof waay. yow yaa ngi jaay sama xel bi sax. non lan mooy diis qu'est-ce que ça veut dire diis. ah Mor soo gisee soo xoolee journée bi mu mu def Youssou Ndour ci arène la ko def la ko def. ah wala da ko daan seetaan nga làmb non da ko daan non lu métti li mu ko tegal laa wax. waaye yow sa waay man déglu ma la buy ma man ngay wax de woo koom de. xëy na dëgg la woo koom. yàquwul rek lu jaay. déedéet yàquwul de acier bi ngay waxal de. waaw waaw acier bi ngay waxal. man ngay doomu dëkk bi. doomu dëkk bi lay waxal. yàquwul rek lu jaay. un le Biar sumber waaw def comme ni mais bandes, mais làmb léegi affaire de quartier te kenn ku ci nekk ngay jéem a yëkkati sa quartier bu jub ci kaw xam nga li ma la ni ñenn ñi jugee léegi pour seen yaa ngi dégg euh, seen noonu lañ ko war a développé tey jii ci wàll yëpp ñu ne tey jii benn NGB moo war a génn mu def fubali ak ay studio mais est-ce que est-ce que ça va booy baax booy bëri grand dama seet na autorité grande daal ñu jàppale leen ci làmb xam nga mënoo toog naan jàppale jàppale est-ce que ñu war a seeti seeti nañ donc loolu lu ñu def lu yàgg la parce que mais nit nag kenn du ko forcé ci loo xam ne bugg nit da lay mën a dimbali dimbali la mais tamit nit nag doo ko forcé wala nga koy toogaal parce que bu ñu nee ku le ne ku fi ne suñu bëgg parce que ay doomi Grand Dakar lañ ñun dëkkuñu dëkkuñu Mali dëkkuñu Congo dëkkuñu Nigéria Sénégal fii lañ dëkk dëkk fii NGB ñu ne ko NGB ñu ne NGB kon bàyyiwuñu. Moutaga jërëjëf waaw yéen a Moutaga. normalement doomu Grand Dakar ak groupe Grand Dakar doo ko mën a ñàkk a jàppale. dalaa yow ñu mën am ngeen am ngeen ku mel ni Modou Mbaye am ngeen ku mel ni Bekay Mbaye lan mooy seen problème bi doon groupe Grand Dakar yi moom bu bëri ak yenn jàppale yi si war amuñu ko lan mooy seen problème est-ce que seeti ngeen ñoom Bekay Mbaye ak Modou Mbaye pour waxtaan pour ñu jàppale groupe Grand Dakar waa mais ñoom ci Grand Dakar lañ ba. mais suñ bokkee si Grand Dakar te ngeen da war a dem seeti leen waxtaan ak ñoom. dem nañ fa dem ndax ñoom lépp lu ñu am Grand Dakar lañ ko mais lan mooy problème bi. waaw mais xëy na xam nga tey jii làmb li muy doxal actuellement nii waaw parce que ba yi bi mu duggee ci làmb yoroon yoroon kii mu ngi doon tëgg mbëru Grand Dakar kon tey jii xëy na affaire yi dafa xaw a tàggatam moo tax ñu quoi mais ñu ngi koy ñu ngi koy ñun daal dégg nga. kon appel bi mu ngi koy lancer appel. et ak Modou Mbaye suñu frère. Ah? autorité bi nekk Grand Dakar ak euh, bépp chaîne bu nekk fii ñun tey jii ñun ñu ngi seen loxo ñun xamuñu frontière ak ñoom fii la ñuy yem ak ñoom parce que ci soxla dañ lay demal kon ñun.

kooku doomu Grand Dakar la te fier Grand Dakar lépp loo xam ne tey jii mu ngi yëngu ci MGD te moom mu ngi koy. mu ciy dugal loxo mu ciy dugal loxo. yaa ngi dégg bëgg démb bu yaay fii may ñaari camion suuf yoo xam ne pour booy kon kooku tey jii ñu def ay pas. bu booy bi nga teg sa tànk bu ko bàyyi waa Grand Dakar ñu lay sant bu baax la gërëm. parce li ngay jàppale ñëpp gars yi ñu koy wax. waaw tey jii dañu ne bàyyi ci bi wéy tànk nit balaa nga laax jaay te moom du tey de du du lim def fii de yàgg na mu ngi def ci sport bi yëpp mu ngi ci football bi mu ngi ci lépp daal ci lépp loo xam ne tey jii jotam may ko dina ci bopp moom tey jii suñu rakk la suñu xarit la suñu lépp la mu koy gën a tàllal loxo yi moom bu war a nga xam ne moom tey jii bokk war na bokk ci relève bu Grand Dakar ñu ko war a tëye nii staffu Grand Dakar yëpp ñoom Souleymane ñoom Mass ñoom Serigne ñoom Mor ñoom Pekk coach yi ñu ngi ñuy ñëpp xool nañu war a njëkkee école de lutte Boy Bambara ak Dour Bakassar ñun suñu ñi fa nekk ñëpp ñoom Mbaye Faye ak ñoom ñëpp daal ñoom Noiro gaa yëpp daal ñu ngi leen di bu baax di seen wàccuwaay. daanaka bu may xool euh, bëri na 19 promoteurs yi ñoom Père Gas mooy doomam bi Makan Mbengue ak euh, doomu Père Ba bi Baye Diaye leen wax ne nañ dugal seen loxo si école de Grand Dakar ndax Grand Dakar ay champion yu mag noonu la booy dañuy mobiliser suñ bëree bu neex yoon la ñu tàllal loxo su loolu tafaa sax am na yeneen xale yu fi te ñu nekk ñu ngi ci écrit bi bëgg nañu bëri am na loolu mais tafaa booy bàppam ñoom si toor a ngi tànn ñoom si toor ñoom faali ñoom fay biram bëri na daal ay caacoo waaw ay tigri caacoo waaw xale capable ñoom ñëpp ah. ah. ay abo abo fiir ay euh, jàmm ngi fii ay sukarien ñoom ñëpp parce que booy Dakar parce que dañuy def beneen affaire boo xam innovation boo xam ne képp yoo xam ne tey jii doomu Grand Dakar booy na nekkoon ci beneen équipe booy ñu ngi ñëw parce que ñu ci bëri liñ naan kuy kuy wàllu yaan sa dëkk moo tëgg mais booy ñu ñibbi si te tey ji incha allah loolu mooy mbooloo mooy doole. billaay kanaaw boobu am tey ñu doon analyser si Siteu ak Sa Thiès Siteu la dëgër du parce que lamb jooju lamb ji nar a neex la quoi parce teman man bu may ñëwoon si incha allah dinaa ko jox conseil boo xam ne xëy na yàlla suñu borom mën na ko ci suufaal parce que tey jii ki muy bëree poids lourd la maanaam moom bu bu déplacé wul daan ko day naqari parce que tey jii il faut mu defloo ko jeu de jambe jéem ko a euh, combat parce que li tax tey jii Siteu Lac de Guiers maam ci kaw bu ñu nee léew ba arbitre parti Siteu buy njoos sax xam ne Lac de Guiers foofu nag il faut dama naan ko doxal toogal ci say dox dem wuti ko mais avec conscience ak nga nga xam ne da ngay sa bopp. du question que dañ la dara doxal dem rek nga dox rek dem euh, sa bopp quoi. parce que tey ji parce que bu bu jàppul Siteu doo moom doo moom mu daan ko waaw bu jàppul Siteu mu duree ko pour pour ko jàpp parce que pour làmb jooju jeex foofu la daggeer jàpp Siteu pour mën ko pour làmb ji mën a jeex mais bu ko jàpp mënu ko mënu ko du ko gaaw a daan mais Tapha grand côté bi xew ci làmb ji tey Reug Reug mel ni Bombardier est que parce que boo gisee tey jii jël suñu jël jël jël boobu c'est normal parce que bu bëree ak Sa Thiès bëri yaa ngi parce que lamb ji léegi. mais Gris 2 ak Sa Thiès duñ duñ bombardier waaye déggoo ma la mooy ñaar ba ñu dem bi muy bëreeg Balla Gaye di ko daal. parce que booy xool tey jii dañu naan Balla Gaye moo poids mais est-ce que poids boobu tey. regret tey loolu moo conseillé tey normalement waaw poids boo xam ne tamit day équilibré parce que mën na jël loo xam ne tamit mën na ko mën na ko mën na ko sonal quoi mais tamit warut a xoyof xoyof ba mel ni

génn ñu nuyoo waat di sant suñu ñaari waat et eh, di gërëm su ma nekk su may rakk su may xarit xëy na tey ji booy genn wàll gi dañoo fukka ni ñii ñii yeewooguñu parce que xam nga ay tubaab ñoo fi nekk quoi xam nga ndax booy dañuy dañuy grâce quoi dañuy grâce ko français bi waay voilà léegi di leen sant bu baax ndax su may rakk yu baax ñoo fi nekk <laughs> maa ñoom ñooy toogandoo ñu naan ataaya mel ni Prési Xaadim. ñoom naar. booy yi ñoo tax munoo nekk ci état. waaw gis nga jëlal booy booy yaa ngi booy tabax booy bambara yaa ngi. waaw booy yaa ngi nii su may nelaw sax ma ñëw yee ñëwakaay toog ma ñëw toog parce que mais dew ma fenn quoi tabax parce que non parce que boo xool dew ma fenn quoi. day quitté ah. waaw mais waaw ay quitté kat mais booy lan ngeen xam seen kër. ci tabax booy bambara. waaw ñu ngi leen di nuyu. di rafetlu teew bi ngeen teew tey seet parce que li ngeen def nii yaakaar naa tey làmb soxla na lii quoi champion yu mel ni Tapha Boy Bambara boobu booy yi waruñu ñëw si làmb rek gars yi daal dégg leen micro fàtte leen ndax kii tey amul lu ñu defal si làmb mbokkoto mbokkote boo demee buy Pikine Parcelles Guédiawaye boo taxaw ko xam làmb boo nee Tapha Boy Bambara dañuy si di boo làmb bu dee ngeen def leen day rafetlu dafa baax ñu jéem di wane waat waaw champion bu mag la koo xamante ni dégg nga loolu waxoon leer lan nga xam Kara Wulf waaw mooy suñu président quoi waa Saloua waaw soo waxee la ñëpp wax nañ. waaw président la demee nañ. Ah, waaw président Saloua. waaw maa ngi lay waaw ñu toog ñu kenn ku dul bët. damaa koy wax rek ngeen maanaam laa ma ko nam. waaw bilaa walaa wa taala tabaa ci biir géew rek xam nga loolu leneen la ko waa. leneen la mu tabaa xam nga te laa ma ñu jamono yii dañuy xool. boo comédie wul nag doo bëri te làmb bëri comédien yi ñoo comédien yi ñoo xam nga ñooy bëri làmb yi te mbër ñun ñoo la ñu sax mbër mbëru comédien yi Serigne Touba Mbacke ñu mbër kaame nañ xam nga te buñ ñëw adee si làmb yi xam nga ñu gisaat tafa beneen tafa bu <laughs> ma ga sanloi bi ñoo xam jéem a àndal moom la yàlla waaw mooy suñu président si koo jaaxal ñëpp a ngay bégee dafa xaar di xaar na na mu combat ak yow promoteur yi ñu leen di ñaan ñu ko suwaat mbëru baax baax baax waaw jaara ji bàyyi ko àll si côté jë jërëjëf benn gars boo xam ne la xam nga lu bari ci làmb muy Pape Malick. Pape Malick lan nga gisee sa mbër ak soo ci làmb. bu naxee booy weex ba xam beneen zone yi. ah deuxième zone. maa ñëw. di nuyu ñi nga xam ne dañoo topp si bi ba pare di wax ne si bi moom rek gars yi wax feere ma feere bu topp si bi rek waa doole Sénégal kaw. waaw dina encouragé waaye yëpp jël benn vision. kon lii dafa am solo. ndax làmb affaire histoire la. du loo xamante ne la xëy rek xëy na ñu ngi kaw kaw kaw. làmb def na pour téeméeri at ak lu nekk. làmb ca mbay sa waali yoon la tàmm. léegi lu yàgg di wàcc ci suuf ba ay ku mel ni ay Abdourahmane Ndiaye Faran jaar nañ ci ñoom Mbaye Guèye jaar nañ ci ñoom Papa Kan jaar nañ ci te ñoom Moustapha Guèye ñoom Tyson ba ci génération ñoom Tafa Boy Bam wax. Tafa nag dafa am parce que ñi mu départandoo bi bëri bàyyi nañu Tafa génération bi ñu départandoo ñoom ñoom Tafa Gueye di ko jëlee ñoom Mathia Sénéga ñoom Cheikh Diop bu Thiaroye ñoom Dolfo ñoom Olaari Diop ñoom ñëpp bàyyi nañ ndam kon moom bu fekkee ba léegi ñu toog te Tafa bu fàttali dañ leen koo xam ci victoire la toog. victoire bu rëy la jógee léegi daan bëri mu naan Mamballa te Mamballa bëri na fekk Thiatou Yarakh ba tànn Thiatou Yarakh ñu dugg ci classe bi. caatu yoof bi ay ñoom jaay ci jaay ci gàmmu gay bon mënuñu dox mbër moo xamante ni ñu ngi ko jox valeur boobu. damay nettoyé mu set. mbër mi ko daan ki ko daan mi ngi nii toog. waaw waaw nettoyé mu set li koy wax instant am na expérience yu wàllu làmb. waaw la ci jeexitalu am la nekk xam na làmb ko ndax tabaab bi bokkul ak tabaab bi doon jëw. jaar koñ bi di dem kenn xamul di dem ci ay mbapat yu naan kii kan di fexe di fexe ba lu xew. ndax Tapha dafa téye 5 ans Mbapatu Dakar kenn mënu koo daal. man nag maa fekkee kenn du maa fekkee ci kër gi bokkul ak dañ ma nettali bu fekkee moom fekk la bul nettali. man dama fekkee Tapha Boy Bambara daal Modou Awadi. rawatina ñëpp xam nañu champion daan soose bu faas bi daan Modou Lo Mbapat ma fekkee Papa Boy Bambara daan ri 15. Pape Sène. Pape Sène waaw champion bu xees. bu xees waaw. Tafa keroog ma xar fekkee Tafa daan Bala Diouf Assane Diouf. ma fekkee Tafa daan Djili Mbaye. ma ko dugg Grand Dakar. daan Tafa Gueye numéro 2. kon ci champion dem Tëngéej bëree fu ne dem na adressé woon jamono kenn du dugg adressé. mais fa. dama ne ñoom mool heure nga xam ne ku nekkul séeréer doo bëri ci biir séeréer man sant yoon léegi nag secteur bii ñu dëkkee nag moo nekk secteur boo xamante ne maanaam wàllu làmb amuñu ci kii boobu jàppale boobu quoi léegi nag li ñu gën a rey nag ci wàllu làmb mooy mbër yi fi nekk booloo xam nga koñ yëpp ñu ngi booloo di ànd di entraîné booloo du ay affaire de kii xew la ngeen ñëw booloo mooy ngeen daje fajar dem entraîné ku nekk may sa morom doole tey dafa am dafa am lu mu mën a apporté ñoom la góor a apporté ñoom général bi Fall am lu mu a apporté ñoom papa Pam Ndour ñoom Pam Ndour am lu mu ko te bone ne bii écurie Grand Dakar war a def le tout ñu fusionné ko ci wàllu këyit. këyit waaw parce que ba léegi nekkul benn écurie. waaw comme ni Fass nekkee Fass Dakar nga xam ne boole écurie Dakar ak mu nekk benn loolu moo ñuy may impact. c'est parce que écurie Doudou Baka sax ba léegi ci seen licence la ñuy bëri ñoom Yankaam ñoom Jéggi. Euh, euh, booy Dakar ñoom ñëpp bëree wuñ ci zone ci turu Grand Dakar. seen turu écurie la ñuy bëri bon nag il faut que ñu jéem a fusionner ñaari écurie yi mu nekk dañu écurie Doudou Boubacar Sarr am na ay champion moo gën a performé écurie Grand Dakar boo gisee mooy doole écurie bi sax mooy champion yi fan oh, ay ñoom yankaaw ay booy Dakar ak euh, booy bi bëree woon ak euh, jeex jàmm booy yooyu ñu nekk ay mbër ba nag Grand Dakar tamit actuellement mi ngi am ay booy yoo xam ne ñu ñëw di commencé bëgg làmb ji am ay espoir mais li leen di wax mooy il faut que ñu structuré ko ñu isulturé ñun 100 pour cent yoo fi njëkk a man mii maa ko créé 100 pour cent ko fi def ci mën nga ko gisee mais problème bi ñu am mooy na mën a nekk benn 100 pour mais 100 pour cent bu dëgër la doon mais xam la mooy problème gis ay nit bu ñuy sonn ci dara te naa la xamante ne Grand Dakar am na ay champion Pape Ndoye mi ngi teg la trois victoires mënul bëre champion la champion bu mag la dafa mi ngi toog ci victoire ay 500000 lañ koy woo di ko fay ay boy Dakar ay comédien ay ay millions ay millions di ko fay ay millions sax parce que yenn promoteur ba noppi tamit nga ñu wax lenn seen mu leer mooy promoteur yi ñu am léegi ay promoteur businessman la ñoom soxlawuñu lamb ji avancé ñoom xaalis lañ soxla la ñuy wër kenn ku ci nekk tour nga ci wut am ci benn mais bi ay dafa leer loolu nag pour ñu am ko nag amateur moo war a dellu si ci lamb sa parce que fan baax na loolu mais dafa rey lamb sa parce que fan boppam rek mbërëm bu mbërëm paree ci lamb ji dem na toog mais ñun li ñu xamoon bu njëkk ba mooy ay booy si keroog ba ñuy tëgg fii Saalum Saalum booy sëy Assane Diouf da nga xam ne amateur Balla Diouf keroog bi ñuy booy sëy fii Iba Mar Tafa booy bambara mii keroog ba ñuy bëre Moussa Diouf si yàlla da nga xam ne ay amateur yi dina toog ay ñoom Birame Diouf mën léegi nag problème bi mooy tey Tafa bi du yoon sax ñu que Tafa li mais da nangu façon que gars yi dañ te amul lu yëpp ci làmb la ko def ba léegi mi ngi dund ci làmb tey nag mënu nekk ci loo xam te ni fayeeku woo ci après nga bëgg ci nekk nga yor njaboot il faut nga jéem a nekk ci yeneen business loolu moo tax par exemple mais Tapha bi bu doon am ay combat kon heure du tal leneen mais tey diggante Tapha ak Tidiane Faye combat la combat bu rëy la ñoom ñaar dañuy war a mën a boole Aliou Seye Junior combat la. waaw Aliou Seye Junior dafa naan ni Fall. combat la combat la c'est parce que ñooñu am na luñ prouvé ci làmb. waaw xam nga Zoss Tapha Boy Bambara combat la. Papa Sow moo leen boole. waaw léegi bàcc seeraas ñun ñëpp a c'est parce que yooyu dafa am luñ def ci làmb. ñu war leen suqal mais bu ñu jëlee booy boo xam te ni moom ñoo ko magee vingt ans ñu bëgg leen boole mooy gars yi génn làmb ji léegi comme gars yi promoteur yi xaw a def bàyyi xel ci na jamono boo xam ne promoteur bi dañ koy làmb nag noonu jamono bi tafa ay ne daa dañ ñëw fii bëgg ko mu yombalal leen Assane Ndiaye ñoom jamono bi ñuy tëgg Assane Diouf dañ daan si ñoom tafa bàyyi mbaar ñu ñuy waa Baye Mbaar yëpp ñu ànd ak dem foofu Tapha di fa def lu rëy ndax keroog amoon na ay temps Assane Diouf Tapha bu duggul bu ñëwul boog Saalum Saalum kenn du dagg Diouf waaw mais ñu ne nee na bëri na fa kon xam nga mu leer mu ndax ñoom Tapha Tine ay ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye yi ñoo nekkoon seen i réew bëreeg ñoom Tapha mais nag tey war nañ leen mën làmb nag moom lool la léegi nag ñoo ñun li ñu am solo mooy nga fexe ba koñ bi dafa moom instant bi moom leader la mag la moom moo jiital boo yëpp moo yor drapeau grand état ñoom Lac Rose ak ñoom ko doxee discours boo yëpp laa leen Lac Rose ba ma demee la loolu la moom général loolu moom bon li ko mën a dooleel mooy mu dajale ay rakam fexe ba autorité yi fi di ànd di entre ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne laaj Omar Ndaw borom Farokh maami